effectivement matériel bi ñu andi tey euh, jox ko IA yi ministre jox ko ak collectivité territoriale matériel bu am solo la pour suñu classe 600 classes d'alphabétisation ñu war a lu ci nekk 600 la caisse savon 600 la caisse eau de javel 600 la caisse gel 600 la caisse kii nag euh, thermoflash yi 600 la mais masque yi ëpp na 600 ndaxte dañu jotone ay directive ci ministère de la santé mu ne bu ñuy ubbi classe yi nañu respecté li parce que ay xalé lañu nekkal ñun sax ay mak lañu nekkal yuy peut-être dañu ñun suñu cible dafa spécifique mais nañu respecté 3 masques par apprenant lool boko défé 1800 masques lañu mettre à disposition mom lañu won woon acheminer au niveau des IA loolu xam nga amna na non seulement amna na pour protéger population yi protéger suñu classe yi mais aussi fay permettre ñi nga xam ñu ngi suñu classe yi ñun alphabétisation dafa nek ay mak ak ay jeunes yo xamné ñom seen njëriñ surtout parce que ay bàjjen dox gox ñu nga ca biir ay euh, acteurs de développement ñu nga ca biir groupement féminin yi ASC ñooñu dañuy àndandoog même classe formelle yi di sensibiliser di informer participer à la lutte contre le Covid 19 donc impact bi fay yaatu parce que suñu langue yi lañu utiliser te bo bëggé Euh, jot population da ngay da koy jege te li gën a gaaw pour jege ko mooy làkk-làkkam mu comprendre li nga ko expliquer mu mun ko comprendre te bu ñu utiliser wu langue nationale nit ñi da ngay dem benn gox du ñu dégg wolof duñ dégg français mais boo utiliser wuñ seen langue doo du ñu xam looy wax donc il faut ñu dugal alphabétisation ci communication bi ak langue nationale pour ñu mun a euh, lutter contre le Covid.